moom toon na ko question mais man fu ma bëgg a ñëw mm-hmm. tuuti rek ah le paradis et l'enfer mm-hmm. aljanna ak safara am na ñu naan la le paradis et l'enfer se trouve là sur terre waaw hmm. loolu nga wax yow waaw man bokk naa ci ñu ko bokk nga ci ñu ko gëm waaw waaw ah laaj nga sa question boobu de waaw ah, waaw boobu noonu il faut ñu wax ci parce que il faut ñu convaincre ma après la mort lan la bis pénc lan la est-ce que ñun dañoo war a xaar ñëpp dee pour ñu def jugement dernier lan la expliquer ma nga dimbali ma ngir yàlla soo mënee convaincre ci loolu parce que man dama gis ne xel ngay utiliser parce que am na tamit defe naa ne bu la neexee lu alxuraan bind mi yàlla def ñu jox nañu xel nangu na pour ñun ñuy xalaat borom xel yi laa wax sax daf la daf la interpellé aha sëñ Tuubaa dafa ne ah. ndigalu sunu borom yi mhm. da nga koy jëfe mais après am nga droit poser le pourquoi et le comment. c'est ça mon problème maintenant je man je pose la question. le pourquoi et le comment. waaw parce que du man dong. mën nga ko poser léegi le paradis et l'enfer. xam nga lan la. bon àjjana taxandeeram moo nekk ci kaw suuf mais àjjana nekkul ci kaw suuf mais safara moom mi ngi ci kaw suuf. ah, ah. Hmm. waaw. safara nan la nekkee ci kaw suuf. bon safara safara am na deux dimensions. Hmm. déjà nga toog ba ci yàgg sa xel nekk ci ginaar nga dem jël ginaar rey. lakk lekk kooku jaa melokaanu safara la parce que ginaar bi gënoo ko dañ laa jox pouvoir ci moom. ok <coughs> yow foofu nga ko teg. <coughs> jàpp ko suqi ko saaf ko xam nga safara bi safara dañ lay saaf. waaw mm-hmm. <coughs> mais est lu yàlla daganal tamit. très bien yàlla moo ne yàlla moo sàkk lépp lu mu sàkk ci kaw suuf pour doomu aadama la. Ah. Mm-hmm. jox la pouvoir ci ñoom. waaw ah. mm-hmm. ne la nag jëfeel sama ndigal bàyyi sama traité di ma sant. Ah. sinon. boo jëfewul sama ndigal woo sama tere te santoo ma ñee gënoo leen de boo matul fañ jaar ba nga am ci ñoom kàttan bis di nga fa jaar ñu am ci yow kàttan ñu saaf la waaw ñu saaf la kii la mm. waaw kooku safara la melokaan safara yow ci côté boobu nga ko waxee ci ñaareel ñaareel problème mooy xoolu ko xoolu ko iñaan mm. kooku safara daf ci nekk day lakk ñaari yoon ok ku iñaan fu mu gis ko ko am lu baax daf koy iñaane waaw da ko defee xolom day gën a tàkk loolu safara ah, loolu tamit melokaanu safara la donc ci xol lay mm. nekk <laughs> comme nit koo xamante ni foo ko fekk du am jàmm. ndax xam naa waaw. waaw mm. loolu tamit melokaanu safara la ci kaw suuf moo tax yàlla mu ne ku iñaan day lakk ñaari yoon. d'accord ak lan safara la. comprendre bon ñaari yooyu doole foo mën naa bu ma neexee. waaw waaw ci yu bëgg naa dafa mën a la nopp ku la nobul. d'accord safara la. Ah, nopp ku la nobul. moom moom fi mu ko teg ñun dañuy discutant ñun ñett. waaw waaw mais a nga melokaan yi dañu bari. ñun boo gisee boo tey loo gisee ñun du ñu fréquenter wala du ñu sobuñu. waaw. ñun suñuy discussion mën naa jël cinquante jours. et puis guerre guerre ci melokaanu safara yi la. d' accord mais moom dafa gis ni. Uh-huh. yenn nit ñi seen iñaan mm-hmm. ak yu bon yi ñuy def. Mm-hmm. ak yooyu nga gis leen avancé wuñu woon nga gis leen nekk ci ay coono. Mm-hmm. ñi ngi ñi nekk di dund safara ñoom. waaw moom laa lay jox noonu ñu ngi leen di mbugal. ñu ngi leen di mbugal. moom mu gis ni. non mbugaluñu leen de ñooy mbugal seen bopp. voilà non moom moom dafa non dafa ni ñi ngi leen di mbugal. mu gis ni moom ñi nga xam ni. Euh, ñi ngi liggéey dund di dund dund gu neex nangam nangam ñooñu ñi ngi ajjana moom mu ni mhm. après la mort mhm. ak safara yëpp ñi ngi nekk di ko dund mhm. nee na bisu penc amul moom gëmu ko non gëm naa ko non non non ay gëm naa ko déedéet déedéet déedéet waaw ci wax ko waaw kay waaw ci waaw dama ni gëm naa ko waaw mais am na point d'interrogation bu ma ciy laaj waaw parce que ku nekk ban pour man. tey dégg naa ci benn exemple sa benn émission boo def. Mhm. nga ni non ci waxtaan sax. Mhm. nga ne Cheikh Ibra Fall. Mhm. tuddeewul suñu Bamba doom kan la tuddee doom. sëñ Maodo Moustapha sëñ Bamba la ko ah, tuddee. ah non hmm? kan kan moo tuddee woon saaba bi. ah Seydina Aliou. Seydina Aliou kan moo ko tuddee doom. Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra na Seydina doom lan moo tax mu tuddee ko doom dañoo daje ci. xare dar mu yëkkati. mbagg bi ñu bind ci foo xam ne ñu bind ci aboori bàyyi góor yàlla yi. kon Cheikh Ibra Fall la woon. waaw ci vie boobu. waaw <laughs> kon nit bu ñaata vie la am. léegi dama lay wax loolu yëpp tam man daf may posé loo ay question tu commences que non man man li ma gëm li ma gëm ci Cheikh Ndiaye li muy wax moom dafa defe ni moom man damaa defe ni dafa ni dafa ni dafa foog ni taxawaay banaam bi su penc taxaw ñu naan kii fii la jëm kii fii la jëm loolu nekkul waaw ah, loolu dina am nag moom loolu moom loolu gëmu moom gëmul ne loolu nekk na. sunu sëriñ mën nañu ci wax dara. maanaam àtte léegi waxuma la gëmu. Cheikh dama ne damay poser question ah da ngay douter. waaw damay poser question. waaw parce que nee na suul bu yàgg. non Cheikh dafay bañ nga jaxase koog Sénégal. waaw kay léegi benn bis dafa am est-ce que. ma ma formulé est-ce que mu ne ma booy ma ne ko mu ne ma ñun kon ñun bu ñu dee dañuy suul ñu toog di xaar ko si penc ma ne ko xamuma. Aziz ni ko xaar boobu nga def ne day yàgg du yàggee noonu parce que mm. yàlla dara yàggul ci moom dëgg la léegi nag loolu lan la boo man li ma mën a expliquer cher parce que bu ñu demee le temps li muy laaj laaj ñu le temps le temps est relatif le temps est relatif waaw parce que tey jii mm. xale bi nekk ci biiru ndeyam waaw def fa neuf mois waaw est-ce que jàppul ni quatre-vingt-dix la fa am mm-hmm. waaw xam nga fi ku am 90 ans naan gudd na fan. waaw est ce que moom 9 mois yooyu amul taxawaayu 90 ans ci biiru ndeyam. wala mu am taxawaayu ñetti fan. wala mu am taxawaayu. sëñ Sam nee na yàlla temps ak espace. amul ci moom est ce que yaa ngi dégg wax ji. léegi ma jox la benn kii ci bis pénc dafa am benn ren muy benn princesse boo xamante ni. yàlla da ko teg nopp mu nopp benn mu bëgg benn esclave. Mhm. esclave xam nga esclave yi des fois dañuy jantal. waaw mm-hmm. mais esclave la quoi pour trop. <laughs> léegi bon ñemewul wax baayam parce que baayam buur la baayam mi ngi xalaat may ko ci généraux yi ci général yi kenn wala ci haute kii yi mais moom esclave bi la nopp. Mm-hmm. mais heure bu ko gisee rek muy liggéeyal pàpp ji rek dafay daf maanaam day mel ni addunaam dafa tukki xam nga boo nobee da ngay taxali ko sa sago. Mm-hmm. mu wax ko nag xam nga jamono reen yi dañuy am ay ay dak maanaam seen jigéen ñi leen di wër. seen cortège non. mu wax leen ko quoi léegi daal bëgg na daal moom xam na ne lii boo ko ñaanee baay bu ko waxee baayam baayam dina ko rey dina ko rey te xelam mi ngi ci esclave bi naka lay def après jigéen ñi ko war naa ko bàyyil ñu dem jëlal la ko indil la ko ko ko defee nga jaxasoo ak moom bu ko defee au moins sa feu boobu nga mbëggeel feu la mhm. boo xamante day tàkk foofu ñu boo jonjoowul ak ki nga bëgg rek du du dal mhm. mhm. ñu ne ko waaw est-ce kii yi dem euh, servante yi dem ni naxante esclave bi di ko naxanteex moom invité ko di ko jox muy naan di ko kii ba mu màndi ba nga xamante ni xamatul fu mu nekk mhm. ñu jël ko yóbbu ko sangu ko ba mu set yóbbul ko ndaw solol ko comme prince def ko parfum yu gën a neex yóbbul ko princesse bi reine bi princesse bi fanaan na moom guddi gi yëpp ba paree ñu jàppaat esclave bi yóbbu fa esclave mhm. waa ji nag ba màndite bi reesee moom loolu mu dund gént la wala dëgg la léegi bu ko waxee moroom esclave bi ñu ne ko da ngay fen rek hmm. te moom xetu parfum bi ak la mu lekk mi ngi koy sentir hmm. léegi kooku dafay am jafe-jafe hmm. pour mën a justifier li mu dund da nga bëgg wax foofu nii nit dafa am double est-ce que ñoom comme dimension nit dafa am double vie waaw yow tey jii nit jëmm la ak ruuxu waaw ruuxu day dem foo xam jëmm du fa dem. ah nga dund leneen loo xam ne après ngay fàttaliku. tey jii boo tëddee di nelaw gént. waaw tey jii boo tëddee di nelaw gént mën ngaa gént gént gu neex goo xam ne doo bëgg ko la yee. waaw te boo yeewoo. non mais nit ruux la nit ruux la. nit mooy doomu aadama. kon dégg nga nangu nga ne ruux. mën nga ruux ak doomu aadama bokkul. ok xaaral ma jàppale ko tuuti maanaam yow. Ah. kii li mu wax ne. Ah. Seydina Aliou ca xare ba dar dafa gisanteeg Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. na nga xam ne jëmm ji moom yàlla réglé na ko. ñaari Cheikh Ibrahima Fall mënul am. ndax minha mhm. xalaqnaakum mhm. wa fiiha mhm. nuhiidukum wa minha nuxrijukum taratan uxra mais ruuxu gi dafay tajjalliyaat maanaam ruuxu Cheikh Ibrahima Fall bi feeñoon xare Badar moo àndaat ak sëñ Bamba fii te bi Cheikh jëmm ji suloo ci suuf si la ruuxu gi transformé feneen mën na nekk si jëmmi kii su boobaa Cheikh Ibrahima moo ne nii waaye ci différent jëmm mais ruu daal du lu ñuy jël teg ko fooy nekk ruuxu day toxalu Serigne Touba am na jamono joo xam ne mooy yonent yàlla Muhammad mais man li laa soxla xaadimu rasul waaye nag su jëmm su jëmm jooju demee hmm. maanaam ministère ak ministre tey Antoine Diome ministère bi mooy mooy bërëb mooy mooy mooy affaire bërëb ba ministre léegi nag xut bu samaan waaw xut bu samaan mooy remplacer man sama ruu bi am na fu mu nekkoon am na fu mu nekkoon avant yow waaw man bi ñëwee sa jëmm. waaw ba jëmm ji dee jëmm karkaas la man. ruux bi day yéeg waaw jëmm ba ñu suul kon ñun nii nit bu faatoo mën nañoo jël def ko ci garab. wala ci xaj mën nañoo jël day nekk day ah? nekk. maanaam tey. waaw dafa am hmm. ay postures yoo xam ne. ruux fa ne. waaw <laughs> émission baa ngi lu ci mel ni xut bu jaamiyoo fardu nangam ak nangam axtaab ak àndaab ak nangam nangam. waaw dafay am. waaw léegi nag bi yonentu ñëwee doon Muhammad. waaw Serigne baa ngi woon ci mbooloon waaw bàyyi ña sa ngi woon ci mbooloo mi moom mii mu ngi ci mbooloo bi man maa nga ci. waaw suñ defee mission ba ba mu jeex. ruux yi dañuy dellu jëmm yi dañ leen di sul moo tax nga mun a gis raw du yonantu bi. waaw waaye ruuxu yonantu bi mënut a fay suñ benn mbokk yi nekk tiijaan gëm ne saa yu ñu la lay wasifa yonantu teew. te mu am benn façon wasifa day am junne wasifa ci àddina. Tiwaawoon dañuy wasifa Medina di wasifa. fas wasifa te ñoom dañu gëm ni juróom-ñaari jawatu kamaal yonantu day teew. sëriñ ma ma Maodo dafa bind téere mu ne ku fanaan ak moom waatal ne fanaan nga ak yonent bi mhm. téere boobu copier nañ ko plus de deux cent mille mhm. donc ruuxu dafay nekk plusieurs mais sa jëmm yow mhm. mënatut a nekk beneen jëmm bu dul yow nangu naa loolu léegi nag moom dañ koy ah sas mu nekk plusieurs ruuxi moom day dellu su delloo nag te mu doon lu représenté waa léegi àjjana ak safara nag àjjana ak safara. je sais pas maintenant alors parce que boo dee sa ruu dañ koy jël. non maa maa ngi ñëw àjjana ak safara am na lu ah, ñu la wan pour nga gëm seen existence. waaw lu ci mel ni dem ba sa xol bi dara newu ci lu dul yàlla. mooy dëgg dëgg aljanna. waaw foofu du am naqar du am feebar du am dara. mais liñ ne àjjana da ngay dem mu am ay géeju. dexul dexul moom la moom laay expliqué. loo xaar mu ñëw sa xel yow. waaw yàlla wan na la ay misaal. yu tax nga war a gëm aljanna ndax ñetti xam-xam lu tax man ma jàppee loolu misaal lu tax mënu maa jàpp ne maa ngi koy dund nii xam nga yéen lan fan ngeen di juumee fan amee problème waaw àjjana xam nga bu ñu koy tudd bànneex moo tax waaw waaw léegi xeetu bànneex ñoo gën a am ah, doole ci yan xeetu bànneex ñoo gën a am doole ci kaw suuf bari na wax ma ci benn a am doole ci suuf mooy jigéen ak sàngara <laughs> jigéen ak ak sàngara moo gën a wax na dëgg ah. waaw yow sàngara moom man du ma naan sàngara sa mais dafa laaj sa vision quoi. non non non non. non jigéen ak lem. non non non lem neexul. lu sax suukar moo neex. non lem moom neexul. waaw d'accord léegi jigéen ak sàngara ñoo dàq ci àddina. sàngara neexul sax suukar sàngara. voilà joxal kii waaj. jigéen moom d'accord na neel jigéen. maami saa mu ne. Ah. boo gisee kuy mànd yóbbu ko ba ci ndeg nga jox ko mu mànd bul màndi sa biiri nawle. waaw sàngara li muy defloo nit. bànneex boobu bu ci benn bànneex nekkutoon ñi naan duñ màndi mais da ma laaj jigéen ak sëñ bi Cissé nag loolu moom boo ko waxee nga ne ma mosoo koo mos. dina ah. xawoon na ah, xaar <laughs> soo gisee ah, na nga koy imaginer. daan na léttu. non soo gisee soo gisee ma ne la mosuma koo mos. waaw ndax góor yàlla yi den ma misaalal man damay màndi ci yàlla. waaw dem ba duma la gis te maa ngi lay gis. Mm-hmm. dem ba wa makaani fii samaani wa samaani fii makaani. Mm-hmm. loolu màndi la. mais <laughs> maawul xay bi la. donc kon kon màndi ara kon màndi araamul. màndi ba may màndi man. waaw dafa dagan Ah. ah man su ma mandi dafa dagan. waaw du sàngara mais sàngara sii nag. Hmm. ñu wane. Hmm. ak mandi bi may mandi ni mu neexee laa xam ne bii neex na. Ah. Ah, jigéen loo ko neexalee noonu ba mu neex nga. boole sa wax nga lu ma bëgg. non léegi kilifa gi ñëwal non non neexi àddina set jaas ban neexi àddina jigéen ak sàngara ki ndax loolu nga laaj. loolu eh, sa gis tontu na loolu nga laaj. man daal ma mënul eh, gëm moom. saa ma mënul gëm mooy àjjana ngi fi ak safara mi ngi fii loo mënul mënoo ko gëm. non man mi gëw ma. dama gëm non léegi xaaral leen dama leen woon misaal. parce que gëm ni. bis dina ñëw. Mm-hmm. ñun ñëpp ñu taxaw ci kanamu yàlla ku ne ñu def la fa. yow xaar ma la benn affaire xam nga gëm. xam nga gëm. après il devient quoi. dem sa la nekkoon xam nga gëm. moom donc lan moo taxoon mu créé nii. mais yàlla li tax mu créé nii mën na créé nii wax ko léegi léegi fii. waaw ah, xaaral ma wax leen moo mu wax leen benn mbir. ñëw gëm. li ngay laajte de boo nekkee sama tali bi ma xamal la ko. ñëw gëm gëm na ñëw sànneex. waaw gëm. ko déggee rek mooy nit ki nangu na lu mu xamul wala jàpp na loo xamante ni xamul amu ci certitude. te muy dëgg waaw. Mhm. gëm boo demee tey jii ci daaree boroom xam-xam yi boo nee gëm naa hmm. yaakaar naa ak foog naa. dañ na mhm. bàyyi nga àggale ba naan xamoo li ngay wax dara. Ah. dëgg mhm. ah. daaree borom xam-xam gëm naa ak yaakaar naa ak foog naa. Ah. vale vale mooy gëm naa bi ma wax. gëm yow gëm rek gëm. gëm parce que yàlla sax bañ na ko ba ne wal mu'minuuna bil xay bi. waaw. Mhm. maanaam ñi nga xam nangu nañ mais xamuñu luñ nangu lan la. gëm loolu lay firi. parce que yeneen bi imagine toi yow Sané. nga am ak sa xarit ngeen foowandoo benn koñ màggandoo defandoo lu nekk. mu xëy su 40 ans mu xëy suba rek ne la yàllaa ma yónni nooy réagir da ngaa dof nooy réagir non la may wax de man toujours mu wax leen damay woote parfois ñu ne ma yow da ngaa. kan man waaw bu ma leen waxee damay maa ngi waaj a woote man waaw yow boobu kan man ni tekk di ko di ko xool. ah waaw dama koy topp ah, man boobu man laaj na man yàlla mën na ko yónnee ah. du ginnaaw yonent bi yonent bi yàlla yónni mën na doon mën na doon ku ku ku ku yàlla yónni tamit na yónni nit te du la am mu yéex a hmm. mais xam bu ñu lay yónnent mooy koo xam dañ lay yónni yàlla moo la yónni parce que que yonent ak. yeneen ñi représentant yonent bi lañu bokkuñu. yonent dañ koo yónni. no man damaa wax de manière générale non de manière générale léegi yow ni nga réagir nii xam nga kii dafa ne dama naan ko da dof. nga ne da nga naan tekk que yonent bi ba mu ñëwee ñoo xam dañ ne ko da nga dof. Mhm. am na ñoo xamante ne dañ ne tekk déglu ko xam ni kii mësta fen waaw mhm. mësta mësuñu ko xam ci caaxaan. ñu posé ko question ne ko yàlla bi ñuy anamu. Mhm. yonent bi war a répondre comprendre nga kooku beneen procédure la mhm. parce que foofu dugg nañ génn nañ ci problème loi ak dog ma maanaam mu amalaat wala ibaadaat yi mhm. maanaam ni ñuy jullee ni ñuy ni ñuy jaamoo àggaguñ foofu fii ñi ngi agsi ci première instance premier moment bi yonent bi njëkkee taxaw dafa woote cant dafa woote bernde togg ay ñam jox jaami ñu lekk ba suur gars yi ne ko lan moo waral bernde mu ne dama leen woo ci benn baat ñu ne ko ban baat mu ne baatu laa ilaha illa allah mooy ñu bàyyi yàlla yi ngeen di jaamu yëpp bàyyi yi ngeen di jaamu yëpp ànd jaamu benn yàlla mhm. mais foofu mhm. arabe waaw waaw mhm. tu vois cinq minutes ñu tëj fekk boobu arabe yi ku ci nekk am nga yàlla boo tabax sa biir kër di ko jaamu te ku ci nekk am nga sa am nga sa cant am nga sa am nga sa ziyaar boo xamante ni say taalibe dañ lay ziyaar si da lay indil addiya foofu arabe yi dañ ne mais kii ñu bàyyi suñu yàlla ñu ñëpp jaamu yàllaam bu ko defee alal ji yëpp daf koy yóbbu loolu xel mënu ko nangu. Hmm. donc problème religion dafa am problème question économie ci ginnaaw religion. Hmm. am na ñoo xamante ne bu ñu weddoo religion weddi yonent du dañ ko weddi ni par passion wala par ñàkk gëm la parce que intérêt yi nekk ci ginnaaw la ñuy xool parce que loo gëm rek da koy bëgg te loo bëgg mu moom la. Hmm. Oh. voilà. Mhm. dëgg ah, loolu loolu jàng jàng naa ko ci kii. loolu jàng naa ko ci Ahmed kii. leer leer léegi ma man côté àjjana ma benn question day ñëwaat de war a dugg moom ci politique ak dugg ak moom ci dafa am lu ma bëgg a laaj waaw man moom côté àjjana beeg safara bi moom dama koy laajal ñëpp mais surtout kii dara leer ndax ni saa waxee seen conversation dafa ma yóbbu ci benn aay yow li ngay laajte hmm. bu dee Sénégal dañ lay saaga wala ne wéroo wala da nga weddi yàlla mais jullit lii la war a def dafa am benn aaya ci suratu rahman mu ne lépp dafay jeex kullu man alaya fan ba mu des yàlla nan nga koy leeralee ku mel ni Cheikh Ndiaye wala benn Cheikh Ahmed parce que bu fekkee ne yowmal xiyam nga wax bés penc am na fa safara am na éternel la ñu wax. ajjana mhm. am na éternel. 33 lan mooy dëggal aaya boobu. Mhm. ne lépp day jeex ba mu des yàlla parce que su àdduna jeexee àllaaxira am na kon su fa àllaaxira nekkee ba tey am na lu des. Mhm. aaya bi moo waxul dëgg wala man maa xamul noo may dimbalee ci loolu lu man alayha fan wa yabqa ila nangam nangam. parce que daf ci am yenn question yoo xamante ni. une dafa am yenn question yoo xamante ni c'est des questions eschatologie. eschatologie tubaab loo loolu la ko tuddee mais question yoo xamante ni wàllu baatin la mhm. kenn mënuloo ko indil tegal la ko nii mais di mhm. yàlla da koy misaal ci àdduna ne am na mhm. comme tey jigéen jigéen aljanna parce que tey ñun dañuy am urul ay ni léegi jigéen lay am bu demee aljanna may ko urul ay yaa ngi fi naa la ci may benn continue jigéen bu demee aljanna lu muy am léegi jigéen ñi dañu leen di xanaa ni Cheikh Ndiaye ñun dañuy am ay urul ay am ay cent mille urul ay ay cent mille jabar waaye léegi jigéen bu dugg aljanna lan lay am yaa ngi am temps bu kii moo tax aljanna foog ma jaay fa àndala ci loolu da ngay ñëwaat jigéen ñi dañ leen di yéegal ci niveau urul ay ni urul ay ni nee nañu seen benn tuflit hmm. pepp bu daanoo ci géej géej gi sax suukar seen benn catuwee neex na seen benn catuwee hmm. bu bu daanoo ci diggu guddi àdduna àdduna leer nañ moo moo gën a leer jant bi te ah, amu fi te àjjana nekkul fii saa nga moo tax ma ne àjjana nekkul ci kaw suuf te dinaa la xamal beneen affaire bi tëb li mu saf suukar géej te màgget ah, gis ma ko oh, Sénégal am na am na fii waaw naa la ci may ñaareel ñëwal kilifa gi ñëwal deux ci des te màgget du dugg àjjana hmm? màgget du dugg àjjana waaw 33 ans la ñu ñun ñëpp 25 ans 25 ans ngay y' de choses te te te te te àjjana euh, maanaam jigéen ñi vierge rek la ñuy nekk. cum ah duñu ñu kii. chaque waaw dañu. àjjana neex na de. ak te ñun suñu puissance puissance su góor. Hmm. dañ ko wàññi. suñu puissance sexuelle dañ ko wàññi. fa fa lañ ñu koy joxe fii nii nii lañ ñu koy joxe. tey laa fay toj de. est-ce que xam nga maam aadama ñaata mètre la doon mesurer. ah. xamuloo ko 60 mètres. waaw ñu njëkkoon ña dañoo amoon. 60 mètres Adama 40 mètres la doon mesurer. 40 euh, mètres. doomu Adama dañ koo wàññi réduire ko te dañ daan dund plus de 1000 ans ñun suñu lépp lañu ñu wàññi ñun suñu dund boo koy par rapport ak vérité bref la moo tax yàlla danañ dañuy wax ci alxuraan naan ñu xool leen ñi leen jiitu ñooñu li ñu amoon. asaka ñooñu sax ngeen ko nga baal ma rek mais ci ci mu ñëwaat. te li ngeen li ngay wax nii nii nii ah. dama koo baj te li ngeen xamul te da ngeen. li nga wax dama koo baj man dinaa parce que tey temps bu njëkk ba. dina ak léegi bokk. dinaa taxaw ci benn affaire gis nga puissance sexuelle. waaw xam nga sëñ bi mu ngi koy kii nangu leen ma mais puissance l'énergie sexuelle moom rek la yàlla joxe comme misaal ci àjjana ci kaw suuf boo xamante ni tuuti la ci wane moo tax. Mhm. tey jii nit ki buy sëy. moment boobu muy daanu. lu ndaw la. Mhm. lu day gaaw day bref. waaw te da ngay xëy suba ngoon jot di ko waaj dëgg la de te moment bu ndaw nga ci am. vite fait nga fange. <laughs> te foofu vite fait nga fange mu jeex. te foofu xam nga lan la la yàlla wax. nga dëgg góor a góor a jigéen bu ñu jaxasoo loolu di neex man la yàlla. Hmm. kon def leen nank bu wér. parce que tey jii xam nga Sénégal éducation sexuelle boolewuñ ko si sunu. programme éducatif. Hmm. et erreur bu mag la. parce que sexu kii wax na ko kii wax na ko sexualité c'est le c'est le point central de la religion. parce que yàlla sax premier aay bi mu njëkk wàccee. première aaya bi mu njëkk a wàccee hmm. tey ji xalak la ciy traité iqra hmm. iqra mooy jànga jànga jànga àggalil aaya bi iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqal insaana min alaqin taxawal foofu ma sàkk doomu aadama ci xalak mooy la goutte de sperme hmm. ndoxu màndiw tey jii sa doom ba la laaj bu jàngee alxuraan ba foofu ne la bàyyi lan mooy goutte de te fekk àggagul fu mu koy gisee loo ko noo koy waxee Hmm. man de dinaa ko wax man man. waaw noo koy waxee laa la parce que man sama lañ daan wax. <laughs> ndox la muy génn ci sa sàkkare. génn. <laughs> très bien. ok ci la yàlla jaar pour defar. très bien. jeex na man dama man man su di amoon naa. léegi léegi léegi nag xale bi. ci xale bi mm-hmm. mu ne. xale bi mu ne Serre Fall mu ne ñetti xeetu jàngalekat ñoo am kiy nettali li téere yi wax kiy expliquer li téere yi wax kiy démontrer li téere yi wax ak kiy inspirer. ñeenti xeetu jàngalekat la bokkuñu. yow ban nga ci. suñu waxtaan moom non non fi mu toll nii kay question xajut fi man artiste la. waaw <laughs> question xajut fi man daal moom xam naa ne. question xajut question bi dañu ko dimbale ci baatin nga leeral ko. <laughs> non non man jeex na jeex na jeex na bi lay jeex na. day ñëwaat de kii day ñëwaat de. yow kii dañ ko waroon tàllal daf ko ñaari émission. billaay walaay maa loolu la waroon def. foofu mu ñëwaat kay. démb lañu soog a gisante xamul ma. dama koy déglu. waaw hmm. sëñ euh, euh, sëñ Cheikh. El Makhtoum. Hmm. yoon nga enchaîné wàll nga tàgguwaat. chaque fajar moom laay déglu man dama man damaa sélectionné ñi may déglu. <laughs> Azazil. te ñooñu seytaane noonu la tuddoon. gëm gi may tere dama la ko yow dama la gëm. bëggoon naa ko kii dama ko gëm. dama gëm Cheikh seen seen Cheikh Tidiane ci El Makhtoum. te gëm naa ne àjjana ak safara nekkuñu fii. non nekkuñu fii. man gëm naa ko. man man dafa am loo xam ne dama ko gis si Sénégal. temps bi jeex na de man man j'ai fait Europe vingt ans. na te Sénégalais yi li ñuy rêvé nii pour dund ko pour am confort. waaw Europe dafa am ñoo xamante ne dañ koo am ba doyal di wër àjjana. te li fépp fii nii lu fi waay di ut. ñoom am nañ ko. am nañ ko parce que fii ñoom fii seen symbole réussite mooy réaliser li tubaab yi réaliser am. donc xam nga d' accord na mais mais xam nga waaw te yow tubaab boo ci dem mi ngi wër àjjana mi bu ko boo li mu liggéey yëpp ko sañoon dina ko jox. day ñëwaat dëggalal la